asalaamaaleykum suñu mbokk téléspectateurs yi euh, ñu dellu seeg yéen ci suñu émission waajal tabaski fii ci Dakar Midi tey nag ñu ñëw ci euh, xar yi comme ni ma leen ko waxee woon rek euh, ku ni tabaski ni xar te ku ni tabaski xam ni photo barfakal la macha allah la tax ñu naan tabaski xar la. waaw euh, tey nag ñu ñëw fii ci euh, corniche bi après de euh, côté rajab bi ci dara bu dara daralum masata bi te ku ne xam na ni fa tubaar fakàlla macha allah masata du ndaw ci Sénégal macha allah tubaar fakàlla mataamu daralam bi rek tey ñëw fii pour def sama émission waajal tabaski ñu fekk fi suñu invité porte parole am muy Djibi Diop Djibi ñu bàyyi la nga nuyoog suñu mbokku téléspectateurs yi. asalaamaaleykum maa leen ziar baax. di leen nuyu bu baax a baax yéen ñëpp maa leen ziare bu baax a baax di jiital nag sëñ Babacar mooy suñ lépp fii moom kër sëñ Babacar si la waaw moom mooy dara sëñ Babacar waaw fii moom mooy dara sëñ Babacar moom waaw maanaam képp moom ku fi ñëw di am li nga bëgg incha allah waaw maa ngi nuyu ñëpp nag moom xam nga damaa mënul wax moo tax. <laughs> waaw Djibi euh, macha allah tubaar fakàlla Eh, nee nga fii mooy daralu sëñ Babacar si ah borom boré carré boobu sunu yaakaar tey ak ëllëg fa tubaar fakàlla macha allah ne xam na ne ci lépp lu mu ne ak fu mu ne rek eh, macha allah jàmm rek moo fay ne. waaw jibi eh, ma dugg ak yow ci question yi dila laaj ni tey seen daral bi dama gis ngeen def ay pàcc pàcc xar ma doon laajte. xar yi pàcc pàcc yi dafa doon xar yoo xam ne bokkuñu melo wala xar yoo xam ne dañoo bokkul prix ba ngeen def leen ay pàcc pàcc. waaw fii moom waaw dëgg la moom loolu moom dëgg la parce que xar yi moom bokkuñu am na ay laadum am na azawat am na tulaabir am na ay bali bali am na ay am na fi mais nag ak ay kii euh, ay coggal tamit am na fi mais nag xar yi foog nga ber leen parce que dañuy mbëkkante am na xar yoo xam ne tamit bokkuñu ay catégorie mais foog nga jël yu mag yi ber leen. jël yu yem yi teg leen à côté jël yu gën a tuuti nga teg leen à côté des fois am yoo xam ne day jar doo ko mën a exposé fi nga nekk foog nga jël ko dugal ko fi nga xam ne mu fii moom jar na ba pare quoi foog nga ko foofu waaw noonu demee quoi mais daal xar yëpp a baax waaw fii moom ku fi ñëw di am li nga bëgg incha allah maanaam daal euh, su ma déggee sa biir wax xar dañoo bokkul ay tur wala dañoo bokkul ay melo wala dañoo bokkul euh, fi nga xam ni dañ fa jóge non xar yi moom dèjà ñoo bokk fenn fu ñu jógee ñëpp mais nag ci race yi nag race yi ñoo bokkul fu ñu jógee waaw mais lépp ay travail la quoi waaw noonu la demee. Euh, Jibi euh, mën naa xam ba léegi dégg naa nga ni bali bali dégg naa nga ni azawat dégg naa nga ni cajeen euh, mën naa xam lan moo leen wutale waaw ci ay race la rek xam nga suñu borom moom moo yéeme da ngay dem tey Màkka boo demee tey Europe ni façon yenn façon xar nga fay gis yoo xam ne bokkut ak suñu façon xar yi. waaw mais ñun moom waaw affaire yi moom da ngay liggéey rek ba am li nga bëgg waaw fu ngay dem di lijjanti ji di utee li nga bëgg parce que am ñoo xam ne aswad moo leen neex am ñoo xam ne tulaa biir moo leen neex am ñoo xam ne laadum moo leen neex waaw mais suñu kilifa bi moom moo ramassé lépp li fi lépp Aziz moo ko ramassé yóbbu waaw moo tax xam nga gars yi moom li fi des daal daanaka bëreetul noonu mais dèjà xar yëpp jar na moom. macha allah macha allah waaw euh, ci biir euh, émission suñu mbokk téléspectateurs yi yéen a ngi ci biir émission waajal tabaski ah fii ci dara daralu euh, Masata ñu fekk fi suñu invité porte parole muy Djibi Diop Djibi sama laaj ba léegi xar yi maanaam ni ñu bokk la ay races prix yi benn la wala du benn. waaw prix yi moom ça dépend ci xar bi catégorie bi mu toll rek. waaw mën na nekk laadum mais bu suurul tamit. xar trois mille ba war na ko gën a seer waaw loolu la quoi sans dépend di ngay xontee xar bi rek mais ñun yàlla def na moom suñuy xar moom yëpp dañuy lekk dañuy waaw dañuy mel dañuy war a mel kenn du fi ñëw moom wax dëgg yàlla ku ñu waxaale benn yoon ñaar dañuy juboo waaw ñun moom macha allah tagguñu suñu bopp nag mais moom bu dee xont moom waaw du ñu moom dafa waruñu sax xaalis boo xoolee waaw waruñu ci xaalis ba doon xaalis kese xale li ñuy lekk par jour mu ñu wax nu mu toll base bi lu nga ko luwee rek xaalis la waaw waxuma la nag xar yi li ñuy lekk te tamit même boo fi jëndee bàyyi fi sa xar tamit xar bi day lekk ba suur waaw duñu takk sa xar ko ne di ko jox ay carton wala dañuy lekk comme doon lekkee ci kër ga noonu dañuy lekkee fii ba boobu ñëwee tamit boo yóbbu sa xar sa xol day sedd waaw loolu daal moo fi nekk. waaw loolu firndeel na ko ndax euh, fa tubaar fakàlla macha allah ko gis lii si sama ginnaaw coogol bi sama ginnaaw ah ak yi sama kanam waa ji bi mën naa xam boobu ngay raay kooku moom xari dañoo am tur wala. waaw kii moom kii moom kii doomu roi Basir la moom. kii dèjà moom rek moom la nit ñi ko laa jëndee quinze millions barki démb euh, mal bi ñuy wax gaynde nit ñi ko laa jaay na ko cinquante million te deret bii la quoi waaw mais moom fii daal lépp am na fi waaw yëpp ay laadum lañ quoi ay xar yu baax lañ macha allah. maa ngi nii jarul di wane fatubaar fakal la ndax ku xool gétt gi ni mu toll fatubaar fakal la xool xar yi xam ne xar dañoo belli du xar ñu jox carton ah du xar yu ñuy jox sombi waaw xar yi dañ leen xont ba mu baax ñu daal di belli di wane seen bopp di wajax wajax waaw kay euh, jibi euh, may fàttali suñu bopp téléspectateurs yi yéen a ngi ci émission waajal tabaski fii ci daralu Masata ah ñu am suñu invité Jibi Diop Jibi sama question ba léegi euh, yéen maanaam ci xar yi bu ngeen leen da ngeen leen di jënd wala yéen da leen di yar. waaw ñun ñoo leen di yar moom mais comme bu affaire bi passé dañuy dem uti rek xar yu baax ñëw yeew am yoo xam ne nag fii lay juddoo quoi waaw comme ñaari seen maal tamit fii yëpp fii lañ juddoo waaw noonu la demee am nañ xar yu jigéen yoo xam ne des fois ñooy jur yenn xar yi waaw am yoo xam ne tamit dañ koy jëlee ci àll bi indi defar ba mu baax jox gars waaw noonu la demee quoi waaw foog nga nag xam foog nga am foog nga xam xar yi ngay yar bu ëllëgee ndax mu mën a màgg mais am na xar yoo xam ne boo ko jëndee duñ màgg quoi. da ngay xont ba bëgg a dee mais duñu suur waaw nu ma dee euh, maanaam daal yar jur daal euh, expérience la laaj waaw ci biir expérience boobu laay taxaw ba léegi euh, ndax xar dina leen di dal ngeen jënd xar nga jox ko parfois lekk boo xam ne waru koo lekk nga am difficulté ci moom. waaw loolu day am ça dépend rek ci xar bi nga koy li nga koy jox waaw tam xam ne am na loo xam ne bu dee tàmm ko tamit nga jox ko bu ko lekkee day fër te bu fëree tamit baaxul ci moom quoi waaw nu ma demee mais xar moom lépp loo koy jox. na nekk lu baax comme ci nit rek am na loo xam ne boo ko lekkee bu woowee tamit mën na la force nga am problème mën na demee quoi waaw. Euh, ak ci xar yi ndax race yi ñoom ñëpp ñooy am lu ñuy lekk wala race bi dafa am lu mu war a lekk race bi tam am lu war a lekk. waaw ñoom ñoo bokk lu ñuy lekk ñoo bokk fi ñu nekk du leen takk sax fi ñu nekk waaw du leen sax yeew ñoom ñoo bokk fenn fi ñu nekk waaw mais laata muy jigéen ñi moom ak dañu leen boole ak maal yoo xam ne fa la ñuy nekk waaw noonu la demee quoi ak ay nag ak lépp wax dëgg yàlla. boo ñëwee fay gétt ga fole boo ñëwee di nga fekk nag yu rafet macha allah waaw. daal su ma déggee sa biir wax daal gétt gi daal mooy loo soxla boo ko fa waree gis ko fa tubaar fakal la macha allah. lenn rek boo demee Tivaouane gis nga nag yu ñuy yeew foofu waaw lépp boo xoolee Aïs ak Massa boo xoolee ñoom nag bu dul nagu jinne dañ koy yeew waaw nag boo soxla boo ñëwee ci ñoom da koy fekk ci ñoom waaw loolu nag depuis seen maam la rek waaw fi may rek moom moom lu amu fi daal Euh, waaw suñu mbokku téléspectateurs yi ñu leen di fàttali ba léegi yéen a ngi ci émission waajal tabaski ah ñu ñëwoon fii tey ci dara lu masata bi macha allah tubaar fakal la nga gis fii tout sorte de xar ah gis fi bali bali euh, gis fi waa euh, biir macha allah daal xar yaa ngi wajaxu macha allah ah di belli fa tubaar fakal la jibi ma ñëw ak yow ba léegi ci samay question maanaam comme gétt gi nii da fay juuti. wala dafa am loo xam ne da ngeen koy fay muy ci mairie bi. ah non fii nag moom wax dëgg yàlla moom macha allah parce que gars yi ay borom baax lañ mais espace nag moo xaw a manqué Dakar waaw borom teene ñoo ñu koy jox rek ñu takk fi mais espace bi xaw na xat nag mais bu ñu amoon tamit ëpp lii tamit dañ ko fi def moo moo waral nag cas yi ngay gis parce que amul espace bi moo yaatuwul noonu loolu moo tax mais fii moom fayuñu dara wax dëgg yàlla guddi gi auto day ñëw gaare fii di gaare xar yi waaw wax dëgg yàlla ñu ñuy jàppale bu baax a baax. amuñu fi benn problème am na sécurité bu baax waaw fii moom macha allah kenn sonn ci dara waaw noonu la demee moom fii moom macha allah. dafa mel ni da nga sàqami sama lanc ndax foofu laa doon dugg dama la doon euh, bëgg a poser question bi di la laaj ndax guddi gi fii sécurité bi ndax doy na ndax du ngeen am problème ak euh, suñu mbokk euh, séeréer yeeg yooyu. séeréer yi moom xam ay moom baaxuñu waaw ñëpp fii la ñuy nekk te auto police bi fii lay taxaw sax guddi macha allah wax dëgg yàlla ñu ngi war commandant bi mi ngi def li mu war a def yëpp macha allah chaque année fii la oto bi taxaw wax dëgg yàlla dañu jàppale nag ba ba ñu pare waaw amuñu mosuñu fi am benn problème te ku fi ñëw tamit loo fi dal yaa def sa bopp mais fii moom kër sëñ Babacar la moom waaw fii moom ku fi ñëw moom loo fi dal yaa def sa bopp waaw parce que sëñ Babacar daal lañ jiital mooy lépp wax dëgg yàlla suñu mbokk téléspectateurs yi ñu leen di fàttali ba léegi yéen a ngi seen émission waaja tabaski ñu ñëw fii ci daralu masata bi fekk fii euh, porte parole muy Djibi Diop macha allah euh, Djibi euh, sama dernière question bu mujj rek ma lay laaj ni maanaam daal daral bi dafa mel ni moom daal lu waay am rek loo indi rek fa tubaar fakàlla di nga am xar doo ñu bég loxo neen. waaw ñun moom ñu ngi sant yàlla baax parce que la moo tax boo xoolee base bi xool xar yi boo rombee mën ngaa ragal. mais nag bu affaire yi gaawee da gis mu gaaw a jeex mu jaaxal ñëpp fii loo fi dugg rek boo fi duggee da ngay am nga bëgg parce que ñun defuñu ko pour xaalis bi waaw Massa defu ko pour xaalis bi yaa ngi dégg wax dëgg yàlla pour nit ñi gën a am lu ñu bëgg rek doo fi génn di dem ci àll bi mais boo ñëwee ba ci àll bi ñëw tamit def fexeet yi toll nii xam nga bëgg nga ñëpp am mais fii moom bu ko fi dugg incha allah li nga bëgg di ko am waaw fii moom méttiwul loolu moo tax chaque année suñu borom mi ngi ñuy tàppale dañuy kàttanal suñuy xar dañuy gaaw a jeex waaw loolu moom ji bi euh, mën naa xam daral bi bi ngeen commencé exposition bi nii yàgg na def na combien d'années wala ren ngeen ko commencé. waa ñu ngi ko doon def nag mais am na am na année yoo xam ne ci biir lañ ko doon def daaw côté bi lañ nekkee ren ñu nekkee côté bii mais arrêté doon nekk quoi waaw mais xam nga comme foofu ni mu xawee xat ak ñun suñu espace foofu ñu am espace bu mag moo tax mun ñu nekk foofu moo tax ñu ñëw fii waaw noonu demee quoi mais yàgg yàgg ko def. yàgg nañ ko def mais espace nag moo ñu manqué ko quoi loolu moo tax mais teewul ba ba ci ba ci biir cité bi sax buñ fa nekkee ñii dañuy fay fekk te xale day jeex te moom suñu borom moom mu ngi ci jàppale bu baax a baax waaw mu ngi ci jàppale bu baax a baax te ñu moom ñu ngi sant yàlla bu baax suñu xar moom macha allah waaw gars yi ñu ngi ñëw bu baax yëpp ngi dem dañuy dem ba jaay sax ba jëlaat yi dem di leen jàppale di leen jëndaal seen xar di jàppale pour ñu jaayal leen seen xar waaw suñu borom moom mu ngi taxawal ci côté boobu bu baax a baax waaw suñu mbokk téléspectateur dañu leen di fàttali ba léegi yéen ngi ci euh, émission waajal tabaski ah ñu ñëwoon fii tey euh, ci corniche bi ah euh, ci daralu Masata bi fekkoon fi suñu invité Djibi Diop léegi ñu feggoog Cheikh Diop Cheikh Diop hmm, moom tam mu sànni ci tuuti kàddu rek. waaw gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi dañu sant yàlla bu baax dañu ko yàlla maye fekke ñu fekke ko quoi mhm. parce que li nekkul sa la première fois ñu def ko. comprends ren mooy troisième année bu ñu koy def waaw parce que première année bi ci biir koñ bi lañ nekkoon deuxième année bi ñu def ko fi bàyyal bi ñu jaaxal troisième bi nag ñu xool ni fii moo ëpp sécurité ñu ne xaar ñu def ko fii dëgg yàlla grand bi li muy def nii Masta Ndiaye seen ci alal waa da def ngir yàlla ak yonent bi gétt gi néew na nit ku fi dugg génn te amoo xar ay nit dañuy taxaw fi Masta Ndiaye même xar mu yëkkati may leen xool kon ko xool ci alal ko li muy def da koy def te yàlla tax jaamu yàlla bu dee alal la yut du ay xar moo koy may dëgg yàlla xar yi nag mu metti trop ñu ci daj ay coono yu métti façon xar bu nekk yor nañ ko fii parce que yéen sax da ngeen a yéex a parce que yoroon nañ fi plus de nañ fi yoroon maa la day taay ci ay xar barki démb dañ fi livré ci xar ëpp na 100 xar mhm. comprendre ada xam ci Abdou Aziz Ndiaye mhm. jënd fi lu toll ak plus de 85 xar doom bàyyam waaw kay. jënd fii lu toll ak cinq xar yóbbu ko fi nga xam ne mooy Ouest Foire jébbal ko ay jaamu yàlla may leen ko te yàlla tax. macha allah te dafa ko ngir puukure dafa ko ngir dafa daf li ko war. dëgg la ay waajuram. Massa Ndiaye tamit kenn gënu ko. ñun moom wax dëgg yàlla amul ñun amuñu ku gën Massa Ndiaye. macha allah ñun ñooy ay xaritam. lu muy def ñun lay woo lu muy def lépp lu muy def rek ñun lay woo. te du lii kese lay def ci ci secteur bi. bu ko leeree ni dëkkandoom la du waxaale ak yow loo am mu jox la xar nga dem loolu ku ko xam moo koy def te joxe ci xol la boo ko mënul bul ko jéem Massa njaay moom amuñu fayam te fii nag wax dëgg yàlla yàlla dimbali nañu secteur bi yëpp kuy jënd fii ngay ñëw commanda bi da ci jàpp bu baax oto police bi fi lay gaare guddi gi ñu jël fi plus day garde ñee yu dul jeex ku fi ñëw ñëwal def jàmm nga dem yàlla suturaal nañu. Euh, maa fi ne wóorul yaa fi ne gën a wóor. en tout cas daal ñun de yéen tamit amuñu seen fay. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. parce que waaw waa Dakar comprendre li ngeen def dafa jafe. parce que c'est la première fois nit tamit ñëw fi comprendre Massa Ndiaye sax xam naa yii sax moom da ngay reeba tas moom moom yii bu fi nekkoon sax moom du ci bëgg feeñ. mais yàlla dogal nañu ñun la fi bàyyi ñun ñoo fi nekk ay frère ay doomam ay jarbaatam ay xaritam dëgg yàlla moom muy defal yàlla te yàlla tax li muy def nii séntuwu ci xaalis séntuwu ci dërëm xar yi metti plus de neuf mois ngay jël ay xar di leen yar di leen dugal ci benn ruq di leen yar di leen xont bu ma la wanee li muy jënd ci xont waaw waaw jibi euh, dama lay dog foofu euh, question boobu bëggoon naa ko posé ji bi euh, mooy xar yi ndax bu ngeen leen indee mën na am parfois ngeen dépensé ci ñoom ci seen lekk li nga xam ne dem na ba dépassé li ngeen ko li ngeen ko li ngeen ko jëlee daal. Euh, xar yi bu dee xaalis nga coy xool bu dee li nga def ci xar mi danga koy xool pour boo koy jaay doo yar xar te doo jaay xar ci diir bu ñu toog fii mat na euh, ay 20 jours fekke naa mu bind ñaari chagu 500000 yoo xam ne xontu xar la xar yi dañuy lekk ñett waaw dëgg la ndax Fatou Baar Fakala macha allah xar ku leen gis xam ne comme ni ma ko waxee sànq rek du ñu xar yu dundee carton. xar yi du ñu dundee carton xar yi ñeent façon lekk la ñuy lekk comprendre dañuy lekk trois saaku ripaas par jour ak ñett saaku ngooñ. feeñ na ci ñoom. comprendre da ngeen a yéex a sax ndax fekk ngeen Abdou Aziz Ndiaye ñëw def lu rafet jël xar yu baax yëpp yóbbu leen. bëggoon nañ nag ngeen fekkee fi xar yu waaw parce que ñun tamit wax dëgg yàlla li ñuy def dañuy def te yàlla tax te ku ci nekk fii boo paree Massa Ndiaye li muy jëflante ak yow say mbokk duñu mer dina la jox xar dina la jox xaalis dina la taxaw du événement moo tax ma du événement bi quoi Massa Ndiaye chaque jour lii lay dund moom. dafa di loo xam ne ci moom la ne dëggu ci moom ne ci deretam. Hmm. mais en tout cas daal mu nekk ay fereeram fii li ma la mën a wax boo wax la ko mooy mu nekk ak ay fereeram nekk ak nekk ay jabraat ay jarbaatam mu jàpp sama mag bi jibi ñoo bokk ndey ak baay man ak moom daf ko comme raxam daf ko comme moroomam lu muy def da koy woo comprendre bëgg sama papa sunu waa kër tamit la même chose xar bu fa dugg Massa Ndiaye mooy ja xar jox la dañ koy sante yàlla Massa Ndiaye dañ koy ñaanal yàlla moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal loolu laa koy ñaanal man mu nekk man man daal amul lu may wax ci Massa ndax dama koy ñaanal rek waaw. Mhm. noonu la demee nag. téléspectateurs yi ñu amoon mbégte ak contenté ñëwoon fii tey ci corniche bi ah seet si woon euh, dara la ma dara masata bi ci suñu émission waajal tabaski ñu am defe naa am ngeen mbégte ak contenté gis fa tubaat fakal la xar yi nga xam ni nekk nañ fi xar yi nga xam ni belli nañ xar yi nga xam ni ah euh, soxna su ko am fa tubaat fakal la wala jongoma juñ ko wutal nga xam ni nag sa alaaji teg na la fu kawee fa tubaat fakal la ñuy doñu ñëpp ah di eh, sargal ñëpp fatubaar fakal la euh, mooy nuyu sama maquilleuse Astel Astel mi ngi nekk Géejawaay en face SDE bi moo ma def nii moo jaar ci kanam gi jaar ci tunique bi fatubaar fakal la macha allah ñuy nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di leen wax ci beneen émission ak suñu émission waajal tabaski